appelu président Ousmane Sonko day appel joo xam ne euh, mun nañ ko jàngat ci anam mi bëri <coughs> euh, benn boo xam ne maanaam euh, benn jàngat buñ ci mën a def ci forme bi naam wax na ni way fuppi nekk ci àll bi la ñuy jënd te teg seen gànnaay te jox lañ benn

ñëpp rafetlu nañ ko mais loolu rek doyut parce que tamit euh, euh, bu ñuy wax accord de paix day loo xam ne ay nit ñu ko sëkk dafa am ay charte ñu koy tënk euh, charte buy tax kenn ku sa nekk nangu et puis mën a dellu si li nga nekk ñu naan accord am na kon dynamique bu bees day amaat donc loolu day nekk loo xam ne lu tamarankel si maanaam processus bi ah. ba tax ñu ne tey bu man Sonko yëkkatee kàddu mu mel ni rek dañuy gis ni rek loolu constat bu buñ ko defee Euh, nga xamni xeyna mo jur euh, appel bi euh, ñu mëna wax ni rek mom bu ko waxee tamit ñun en tout cas en tant que acteur bi nga xamni dañuy yëngu ci walu jamm ji tamit di ñaawlu wala di gis ni vraiment affaire bi soxl doxul comme nu mu war accord accord mënul am processus de dialogue mënul am donc dañuy gis ni kaddu boobu don bu don mën na indi mën na safar mën na am mën na am retentissement ni ñu ah. nekk si àll bi mën nañ ko dëgg mën nañ ko ko nangul hmm. euh, jàmm ñu ñuy wuti àla kulaalin donc loolu bu doon mën na tënk xeex bi euh, te fexe ñu nekk ci àll bi yore seen gànnaay te tamit di xaar ay solution bu doon loolu doy na leen ah, dañuy def rek dañuy ñu def leen lu lu lu rafet et puis tamit euh, yaakaar ni wax dëgg yàlla xëy na dina am dina boo xam ne dina ko firi Euh, si ay bés yi ñëw wala ci ay mois ci ay weer di ñëw pour que. moom euh, moom ay forme lay jël ak yan contenu lañ ci dugal.